entier. tey maa ngi tàmbalee ak ak ak waa critique critique critique journal critique. lu ñu critiqué. ñoom dañu <laughs> euh, dañu dañu dem fee ca Mbàkke. d'accord nee nañ boo demee région Diourbel. Mhm. Euh, Mbàkke. Mhm. département Mbàkke mooy plaque tournante euh, jaayum dorog ba. lay wax ni. département Mbacke. Mbacke mhm. ci boppam. nee nañ la fa la fa la jaay jaayum jaw bi. ñaay. war nañ borom dëkk ba de. tooñ nañ ko it. tooñ nañ ko de ndax ñoom dañu fa dañ fa saisir quarante kilo chanvre ak ci sa ci week-end. moom quarante mille kilos boo ko estimé deux millions trois cent quarante mille. d'accord. chanvre mooy yamba. bu doon vingt milliards sax it neneen boobu boobu noonu ñu fa jëlee qualité bu verte bi la mi ngi jógee mi ngi jógee sud ci sud bi la jógee. Mm. jaar Gambie jaar Kaolack soog a ñëw ba foofu ñu jàpp ko. Mm. te waaye. commissaire Modou Fall suñu naataangoo yi nee nañ commissaire oh. Modou Fall mi nga xam ne eh, moom ñoom dañu xarañ waa OCRTIS oh. moom moo yore direction bi foofu nee na eh, affaire bi daal eh, Diourbel daal boo jëlee région Diourbel yëpp nga jël Bambey Diourbel Mbacké Mbacké la Woulé Ndiaye. te mhm. te loolu du la nga xamante ne ñi koy def dinañ ci am ndam ndax borom mhm. dëkk ba. Mhm. du caaxaan te caaxaan li ma ci metti rek mooy di ciy dégg borom mi turi kilifa yoo xam doo leen ko fooge. Mm-hmm. Ah, loolu nit dina def dara rek yaay nga xeeb ko. dëgg la dëgg dëgg la. bàkk sëñ Tuubaa dina jëf nga xeeb ko. mu mm-hmm. wax nga xeeb ko. Mm-hmm. gis nga loolu foo foo ko gis rek koo yaakaaroon kilifa. Uh-huh. gis ko ci yooyu. Uh-huh. dañ ko ko tuddee woon rek mosu ko doon. mosu ko doon waa. kilifa moom wax dëgg yàlla. mooy ki ne fi yëng. dégg ñooñu. yaay loo waxoon. waaw ñooñu. Uh. Mm, duñu ay kilifa. ñi ne fi yëng lañu mm. dañu ne yëng rek di def lu bon mm. waaye kilifa dëgg mm-hmm. day xam boppam xam fi muy teg tànkam mate place mm-hmm. ak ban euh, ñu dem ci beneen bi beneen bi ñu ngi dem ci journal Les ci seen page trois mm-hmm. foofu dañu dem Pikine Tali bu mag moom benn commerçant daal waaw moo ñàkk foofu cinq million deux cent mille francs nu mu ko réeralee wala dañ ko sàcc dañ ko agressé benn sekkeen ak benn njaween daal ñoo fa ñëw Ah. ñoo fa ñëw daal proposé ko ay coupure quatre cent coupure vingt euros ne ko pour mu wecci leen ko ok léegi pour mu wecci leen ko moom tamit mu dal xel am na détecteur de faux billets xam naa xaalis bi teew teew noonu rek mu jël dug jël xaalis jox leen ñu dem te lekk te lépp baaxul moom daal xam nga lu ko lu ko kii dafa jékki-jékki dégg commerçant marchands gi toog naan ñoom am na ay nit yu fi dugal xaalis bu bon rek xelim na yar ca la mu wecce ci vey ba wecce woon na fekk possédé nañ ko ba mu def ba mu dem <laughs> ba mu dem teer mu dem génnee xaalis bi testé oh. xaalis bi nekk mu nekk xaalis bu bon oh. mu gàddu xaalis bi metti ku ah tàggoog sagoom dawam dem police yóbbu police wan leen xaalis bi def Euh, porter plainte contre X parce que xamu leen. xamul xamu leen. xamu leen. Euh, porte plainte contre X. Mhm. gàdd ñu bàyyi fa xaalis fu ñuy def ko suuf sele. doy na waar ndax ñoom ñii nag ñoom seen bàq leen ci xottu gerte ndax comme police ci dugg rek. waaw te comme weccante bi àndoon naa ko loxo. Mhm. empreinte ya ña nga fa. du sori nanu maytu rek. du ñu sori ak lu mu ci mënti doon man wóolu naa leen man. li li ñàkk li mu ñàkk. wóolu nga ñu dara wóolu de. ñu jàll ci keneen li mu ñàkk baal bëri na. 5 millions. Mhm. Euh, beneen bi. kii di Pape Ndiaye moom nga xamante ne kii di président de la république moo ko moo ko moo ko moo ko gracié Pape Ndiaye. waaw mi ngi bokkoon ci groupe groupe ñoom Ino ak Alex ba. Euh, Alex Ino nekk ndaw. moom ba bu jamono jooju mi ngi amoon vingt ans ñu tëj ko vingt quatre ans mu ngi génn am quarante quatre ans. Euh. mu ngi moo génn nag ba mu génnee ñi suñu naataangoo yi di euh, waa. Euh, l' observateur ñu seeti ko waxtaan ak moom si seen page boo demee si journal page neuf ak ak ak huit ak neuf. Mhm. wax na ci moom nee na demoon na ba gëmatul ni dinañ ko gracier waaw ndax yàgg gi mu fa parce que vingt quatre ans. Mhm. ci biir après mu ngi naan moom ñu bëri dee nañ ci askanam ñu bëri judd nañ ci askanam ci ginnaawam ci vingt quatre ans waaye. nee na ay famille mosuñu ko bàyyi nee na maamam bu am quatre-vingt-quatre ans chaque semaine da ko daan indil xaalis si ndeysaan ndeysaan kon mu ngi moom nag nee na moom dafa dafa dafa dafa ameel njukkal kii di euh, Ino ab Alioune ab Talib samp moom yàlla jël na bakkanam ak euh, ndax nee na Ino moom ba muy dem kaso jamono jooju vingt ans la amoon moo gënoon nekk ndaw mais moo gënoon tuuti ñu dugal ko ci chambre dix moo xam ne ñu ne chambre dix dafa métti woon ba ñoom seen jamono ñu tuddee ko Rwanda ay cent cinquante personne ñoo dëkkoon ci chambre mais Inoo moo ko jëloon protégé ko. di ko jàppale bu indee bu. lekk ko défendre jox ko di ko ba ba nu mu génnee àdduna moom moo tax nee na moom da koy kii parce que da koy da koy gërëm ndax ku baax la te ku ko jàppale. da ko taxawoon ci prison bi buggul di ko woowee Inoo. nu mu koy woowee. turam Aliou Abou Talib. noonu la koy woowee. noonu la koy woowee moom nag. moom jàpp na ni prison changé na ko ndax nee na léegi prison yi nee na lim na sax fële ca camp pénal boo fa demee nee na douze daara ñi ngi fa ñu fay jànge alxuraan kon prison la am na lu mu def si moom. Mm-hmm. mu expliquer nag li ko waraloon loolu yëpp muy rëcc bu mu rëccoon prison parce que moom dañ ko jàppoon pour vol de bétail. ok ko jàppee pour vol de bétail mu dem prison war a tëdd deux ans mu fekk fa ñoom ino mu ànd ak ñoom rëcc loolu nag. moo ko dugalaat moo ko dugalaat. léegi nee na moom rëcc boobu lu tax mu rëccoon. Mhm. nee na vol de bétail boobu ñu ko accusé woon moom dafa moom def ko woon. jàpp moom nee na keneen la ku koo xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon tur. Mhm. mais xamante woon ne Pape la tudd. comme mhm. moom kooku moo ko defoon ñu ñu accusé ko tëj ko nee na par la suite sax lu ko gën a metti mooy kooku jàpp nañ ko ak woy juróom bu góor boo xamante ñoom ñaar ñoo defandoo loolu ak inspecteur bi ko tëj. mais moom ñu bàyyi ko ci kaso bi moo tax mu rëcc. mu rëccoon mu mu rëcc moom mi ngi dellu si ne famille daal jàppale na ko bu baax a baax boo leen demee ci observateur di ngeen gis plus en détail ni mu dellu parfois boo koy lire sax sa yaram day daw. Mhm. mais nga xam ni njubal rek moom am solo. Mhm. njubal rek moom ci ci waxam sax da ko ji mu ne moom dafa mel ni ku judduwaat te war na def ay preuve am. donc mu war a nekk exemple boo xam ne man. keneen war nañ koy liir mhm. pour xam ni. Mhm. Euh, am na loo xam ne warul doomu góor. Mhm. jërëjëf mu nekk lu am solo yaatal bu leer boo xamante ni ci la vie carcérale carcérale la fii ci réew mi. Mhm. di nga gis ko dem prison te du bonam moo tax. Mhm. waaye lu mu ci mënti doon maanaam yenn saay destin la day bokk ci sag dund. waaye yal na ñu yàlla toujours di may rek xolu ak esprit de des dépassement boo xam ne buñ ci jógee. dinañ seet leneen. yaa booy mu mel ne tey si sa yi mu indi woon am na solo. am na solo moom macha allah. waaw ndaxte moom ay famem dañ koo yokk jom mm-hmm. dañ ko ñaax mm-hmm. kon na gën a góor góorgóorlu mm-hmm. ndax boo amee famille bu baax nga nekk ci prison mënoon nañ la jéppi wala ñu beddi la mais dañ ko dañ ko dañ ko dañ euh, maamam da ko war a yokk jom te bari na fi nag waaw maamam da koo yokk jom nee nañ sax na gën a góor góorgóorlu macha allah te comme fi mu nekk ni yàlla may na ko liberté mu mu jéem a li nga xamante ne perdre na ko rek parce que l'homme ci boppam est ne bon jërëjëf si sax kontaan nañu ok ñu allah ah, la yow gis naa dañ koy kontaanee bu baax moom si soxobal sanu dañuy ñëw nag ci li nga xamante ni mooy sunu thème du jour mais bala ñoo dem rek yaay dañuy yaatal ci benn souvenir boo xamante ni tey bis ni ki 3 août 2020 bi euh, le 3 août 2012 kuñ doon woowee euh, Thierno Ndiaye Doss nekkoon sunu papa di artiste comédien mm-hmm. euh, information bi ñu. ngi ko amee ci ki nga xamante ni mooy Malick fii ci Sénégal 7 mu ngi ñuy xamal ne bis ni ki tey ci la génnoon àdduna ñu ngi koy ñaanal bu baax kii nag yaay daa mel na xam nga ko de. macha allah waaw day day day day dafa nekkoon koo xamante ni yàgg naa bëggal sénégalais yi daan joxe ay thème ak ay message yu am solo waaw moo fi joué woon gelawaar euh, nekkoon nekkoon ku ku ku koo xamante ni wax dëgg yàlla dafa baax mm-hmm. te it yàgg éduquer nit ñi ci mm-hmm. ci ci Sénégal mm-hmm. ndeysaan gëmoon boppam. Mhm, gëmoon boppam. macha allah mhm. ay ay ay parolam mhm. ñu ci daan jariñu euh, jàngal nañu bari nag. macha jàngal na fi ay ndaw. waaye jàngal na fi it ay mag. ba pare li ma gënoon a neex ci moom mooy. dafa gëmoon boppam. am fulla am fayda. ca la muy def. te gis nga caat. nit looy def ci àdduna ak lu mu mën a doon. boo ca boolee fulaak faydaak dignité ak gëm-gëm. raw da ngay raw. te nga bañ a déglu dara. te bañ a déglu dara. bul xool bul déglu. Mhm. gis nga euh, oto bi nekk ci kanam. rek la ñuy corné la ñuy corné boo nekkee ci ginnaaw mais oto bi ci kanam mënulaa korne déedéet donc kon gëm-gëm dafa am solo. te moom li mu doon def da ko gëmoon. Mhm. am ci fulla ak fayda. macha allah moo ko taxoon na yegg fi mu yeggoon. Mhm. ba tey ji nag. Euh, loolu mu def noonu. Mhm. mooy continuer ba tey. billaahi muy gëm boppam rek. macha allah taxaw rek ne fii laa jëm. am vision ndax nit boo taxawee ne fii laa jëm te fii ma jëm yoon bi laay aw te bu ma demee bëgg naa faa yegg. Mhm. par force kenn du la tëye. bàkk Serigne Touba mais nag boo gestoo nag dañ lay daal di poñe. mu ngi noonu boo gestoo. te bu boobaa da ngay xoju jaf dañ koy kontaanee bu baax sama yaay ji gis ngeen loolu moo nekkoon éphéméride bi bu baaxee Souleymane dañuy indi suñu thème mu bés bi dalal sama rakk ji Ria Diallo su ko defee ñu daal di koy waxtaanee ñu dem dikkaat daal di dalal sama rakk ji nag à tout ñu jaajëfal ko bu baax moom Souleymane sama niki ministre bi daay ñëw tey tubarkalla waaye moo dàq ñi nekk États-Unis yaa eh, booy moom moo leen